tay li tax ñu daje dafa am bir mu yéme mu ñaaw mo xamné mom mo am ci koñ bi barki dem ci guddii ay defkatu teef ñew ci kër suñ dëkkandoor agressé ko nangu alalam gor ko gor yu metti ba domam ñak ci bakanam te loolu li li ëpp ci liko waral moy ñakum lamp pot lamp yi nek fi ken talut ko parce que nit suñu guddii koñ bi lendam di nga bugg a jóg pour wàllu mais du du wóor parce que xamoo ñaaw téef fan la làqatu di la xaar te ku nekk xam na bànd yi ni ñuy doxalee dañuy escorter kër gi bu fiy leeroon nag koñ bi yëpp fàqandoor mais yaakaar naa ne même buñ naroon a xeex ak ñu nit danañ arrière daw waaw. fii wax dëgg yàlla quartier su màggee nii boo xoolee diggante Kanda Amady Diakhou Kanda Fodé Bayo 1 Kanda Fodé Bayo 2 li fi nekk ci doomu aadama ay la yéen war nañoo dimbale ñu samp fi benn brigade de gendarmerie. ndax poste bi fa nekk nekk ci euh, ko woon euh, daf ñu sori daf ñu sori te problème bi ameewut face ko woon comme li euh, média yi di wax dañ juum ndax ñoom xamutu xamuñ limitu quartier yi kan daa Amady Diakho la amee. attaque bu fi am dafa nekk loo xamante ni moo lëmbee Sine Saalum moo lëmbee Sénégal mu nekk lan insécurité insécurité bi lu ko waral kat kat la bo xamne ne ay juróom ben nit ñoo ñew fi ci kaolak nangaan ñew si Kanda amadi jaxo ñew nak ray fi africain nee nañ américain la mais waye africain la parce que dafi ñewon di jaamu yalla mok bayam nañu waxante deug te dee tay gi ni lu toll ni tay gi ni Kanda warna na am brigade de gendarmerie nañu waxante deug gendarmerie ak policiers ay jambar lañ nañu waxante deug ñun nak Sénégal xam nga suñu problème ñun rawatina Sine Saalum Kaolack di ngi bàyyi ba problème am ñu soog a jug. tiit lool lañ def tiit nelawatuñ guddi nelawatuñ bëccëg ndaxte dañuy jigéen jur te nee nañ ku jurul doo yërëm te ku jur ku nekk xam li ci njureel di nga tiit jamono jii ñu toll. chaque jour nga dégg sàcc nañ xale ba rey nañ nit ka booy génn sax yow da ngay tiit boo xëyee di dem marché yaa ngi xool nooy def say doom yaa ngi xalaat bala maa ñib si yàlla buñ leen rey lu nekk ngay xalaat bi may ñëw fii sax sama doom dama ko tëj sa néeg ba ndax wóoluwu ma kaaba sa kër ga moom dong ba may ñëw ku nekk onaa na la xoolal ma ko kon xam nga ne loolu metti na ñu dëkk si koñ boo xam ne nag Kanda amul benn sécurité Kanda lëndëm na Kanda ruqe na Kanda bëri na ay kër yu àggul bëri na tabax yu àggul bëri na ay woyu